yam mooy saytu lépp xam ne jëm na ci wàllum commande marché public yi journal bi nee na membre yi nga xam ne tamit ñoo nekkoon ARMP ba léegi ñoom tamit am nañu ab mandat bu yees ci kuréel gii di ARCOP bi de la mandat Les Échos li quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu conférence des leaders coalition républicaine sàmm sunu réew a ñoom Pape Moudou Fall amuloon nañu am ndaje waaye nag daat nañu fay wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu kan président Macky Sall bi daat nañu koy teg ci table ji fas yéene ko débattre ndax ñoom jamono ji li ñu bëgg daal mooy Benno Bokk Yaakaar daal di libérer Macky bu bennoo libéré Macky Sall ba pare ñoom tim daan nañuy sàkku Macky Sall daal di libéré ñi nga xam ne ñooy alliés nekk ci Benno Bokk Yaakaar ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ma ñoom Pam Moudou Fall sunu réew ñoom nag jamono ji li nga xam ne moom la ñuy sàkku maanaam mboolem organisation politique nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñu jël débat bi daal di koy posé ci conférence bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéene kaay gi di wax ci dialogue bi nga xam ne njiitu mi di président Macky Sall daan na koy woote journal bi nee na Khalifa Ababacar Sall bu taxawu Sénégal bu ngeen ko gisee si dialogue bi bu mu leen bett l'observateur xëy di ko dëggal nee jamono ji ma ngi consulter ñi nga xam ne ñooy baas bi maanaam di waxtaan ak ñoom ba xam ànd nañu mu dem si dialogue bi waaw wala déet yéen kay gi di source a xëy duñu xibaar naa ñu bi su dee am na la nga xam ne moom lañ fay njëkk a waxtaane mooy Khalifa Sall Karim Wade nan la ñuy bokkee si dialogue bi waaye tamit lu jëm ci wàllum parrainage danañu ko daal di waxtaane la nga xam ne nag moo si nar ay gàllankoor mooy Macky Sall mi nga xam ne ba léegi ma ngi ci nii wii nii non mi nga xam ne ay mbiram dara leerugu ci journal bi de Les Échos xëy duñu xibaar ñu taxawu Sénégal ñi ànd Khalifa Sall te nekk sa Tamba ak arabisant yi ànd Khalifa Sall ñoom nag nee na ñu ko demal si dialogue bi waxtaan ak Macky Sall bu dee nag ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom Karim Wade ba léegi amugul benn dogal boo xam ne jël na nañu ko si dialogue bi yéen a kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall jamono ji li ñu jàpp mooy Macky Sall dafa teg nag li nga xam ne mooy dialogue bi dialogue boo xam ne ab deal la di leen di balancir maanaam bi daal koy taafantalo ab deal xam ne Macky Sall jubluwaayam mooy fexe ba seetal Karim Ababacar Sall daal leen di amnistie waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa coordination taxawu Dakar ñoom nag ànd nañu ci dialogue bi nga xam ne maanaam gàcce la bu ñu sukkandikoo ci La Tribune waaye nag nee na ñii daal ñooy tànn ñooy tànn ñu daal leen di toroxal bañ na tott ci li nga xam ne mooy dialogue bi wala nag ñu daal di invalider seen candidature yéen kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko niki démb ci nemmeeku tur bi ma ngi woon ci diwaanu Bignona dem na ci njabootug ñi nga xam ne ñooy korka mi faatu woon ci manifestation yi ñu génn moom Ousmane Sonko daan nay tontuwaale imam bu Ndakaaru ndax imaamu ndakaaru ci korite gi dafa waxoon ne ñi faatu ci manifestation yi safara la ñu jëma na am na loo xam ne yàlla sun borom ci boppam maanaam moo ko mooma te nag nit si boppam wërta nekk palaasu yàlla am na loo xam ne yàlla moo koy décider te ñii nga xam ne ñoo ci faatu maanaam ñooñu dañoo jihaat Ousmane Sonko daan nay wax ne boo jëloon téeméeri imaama maanaam du ñu dëggal lii nga xam ne imaamu ndakaaru bi daan na koy wax te mbooleem ñi nga xam ne ñoo faatu ci manifestation yi ma Macky Sall ci boppam mooy responsable bi Ousmane Sonko nee na nag fii ci ni moom lañu ñu singale ndax manifestation yi am na lu toll si juróom benn ñoo xam ne ñoo fi faatoo Ousmane Sonko nag daan wax njabootu korka na leen mbir mi nag metti na lool waaye nag man maa ngi ko ànd ak yéen a jamono ji nga xamante ni nag Macky Sall xañ na leen mbëggeel gi nga xam ne amoon ngeen ko ci seen dooma jamono jooje nag doomam Amadou Sall maanaam ma ngi parang-parangi di dox tranquillement Ousmane Sonko daan nay wax ne mbir mi nañu ko wax mu leer Macky Sall mooy yónni ay nit ngir nag ñuy tiire ci askan wi waaye nag na ko leer ne bis BTP bi jamono jii ñoo ngi sonn ba mara de tali ñoo ngi ci ay ñaxto ndax lu jëm ci wàllum dette publique bi ñoo ngi daw ci lu toll ci deux cent milliards yoo xam ne état bu Sénégal moo leen ko amala journal bi nee na lu toll si juróom benn junni ci ñuy liggéeyee ci secteur BTP bu moytuwulee maanaam taxawaalu ci la ñuy mujjee maanaam dem semence journal bi nee na nag ñi nga xam ne ñooy secteur BTP ñoom nag li ñuy sàkku mooy lu jëm ci wàllum préférence nationale ci entreprise nationale yi ñoom nag nee nañu contre ñu benn yoon entreprise étrangère yi waaye nag am na ay forme yoo xam ne dañu koo war a respecté ñoom li ñuy sako mooy nag am ndaje ak Macky Sall ba pare ñu amal ab assise ci secteur BTP journal bi di enquête nee na secteur BTP bu Sénégal jamono ji liggéeykat yi ñoom sonn ñu ba mara détaillé mer nañu ndax nag ñoom dañoo gis na dañu leen a seetaan ndax liggéey yi nga xam ne moo jëm ci ilaate waa woon 335 milliards la ñu jël ko jox ko ay doomu Côte d'Ivoire yéene kaay gii de las daan nay wax ne lu jëm ci wàllum relance industrie locale gouvernement bu Sénégal daan nay dakkal daan nay suspendre lépp loo xam ne jëm na si exportation ferraille kaay gii di la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu campagne agricole 2023 jàpp 2024 am na fukk ak juróom-ñeenti mesures yoo xam ne gouvernement bi jël na ko ngir am ndam ci campagne agricole bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi di Direct News xëy dañu xibaar naan ñu waa IFMI def nañu ab étude maanaam ab saytu ab gëstu ci situation financement Afrique subsaharienne journal bi neen rapport bi nag li nga xam ne moom la wone maanaam jafe-jafe yoo xam ne doy na waara pénurie bu rëy moo am ci lu jëm ci wàllum financement ci Afrique subsaharienne li nga xam ne nag moo ko waral maanaam facteur yu bare bare la journal journal bi di Direct News daan na xëy jukki rapport bi nee na nag li nga xam ne nag moo jëm ci yokk gi am ci taux d'intérêt ci niveau mondial bi ak nag boo ci yokkee jafe-jafe yi nga xam ne pouvoir public bi am na ko ma ngi jànkonteel ak mooma te nag covid bi ak crise bi am ci wàllum dund gi daal di koy waral ci la journal bi xëy yéen a kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu conférence des cadres de l'APR cadres yi bokk ci APR ñoom Abdoulaye Diouf Sarr doon nañu amal wax ci lu jëm ci wàllum pétrole bi ak bi nga xam ne moo feeñ ci Sénégal ñoom nag nee nañu njariñ li jamono ji bëri na ba maara daytaale mën na soppar ñi bu baax a baax dund ak nekkinu askanu Sénégal waaye nag ñu fexe ba moytu bu baax a baax lépp loo xam ne jëm na ci wàllu malédiction pétrole ak gas bi nga xam ne ay réew am nañu si ay jafe-jafe nañu ko moytu ci réew mi te nag nañu jéem a planifier économiquement comme bi nga xam ne moo ci bàyyi ko waaye tamit ñu daal di fexe ba feeñal stratégie yi nga xam ne opposition bi ñoo ngi koy teg ngir andi kaawa ci réew mi yéen kaay gii de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu foncier bi nga xam ne moo andi coow li fan yi ñu génn ci diwaanu Ngor li ca am lépp gaa yi waxuñu ko mbir mi lëndëm na doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne am na ci terrain bi nga xam ne toll na ci trois mille trois cent quatre-vingt-sept mètres carrés journal bi de Le Quotidien yor yora nee na jàppante yi nga xam ne fan yi ñu génn amoon na diggante takk der yi ak ñenn ci askan wi yewoo ca ngoro am na ci ay laaj yoo xam ne ba léegi gaa yaa ngi koy laaj te kenn tontuwu ci ndax keru gis nañu ñoo xam ne dañoo sol ay tenue civile maanaam yor ay ngàndaay di tiire ka bàyyi ñooñu nag dañoo bokk ci force de défense et wala tamit ay nervi yoo xam ne dañu fee nekkal benn homme politique yéen kaay kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu léegi lépp leer na ci combat bi war a dox diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux juróom-ñeenti fan la ci weeru juillet waa CNG ni ki démb daan nañu koy officialiser. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo doon may seen revue de presse seen revue de presse